لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am tey dañu ñëw ci mango muy le mangi fera indica anglais di wax mango tree muy garab gu doy waar nag dafa bari ay njariñ di sax dans la zone tropicale réew yi bari naaj bari na fa cosaanam nag Inde la moom mango cosaanam Inde la ñu ñee ko indi fii Sénégal jëmbal ko mais ñëw si xas mi xas mi moom dafay baax si asthénie surtout ñi nga xam ne dañu fatigué sonn tawatoon ba jóge si jàngoro feebar boobu mu def leen asthénie faiblesse mu ñuy baaxal xasum mango bi ko naan dafay yëm ba amaat force ñi am tension buy wàcc seen garab mooy xasum mango moo tax boo amee tension bu yéeg wala ba naan xasu mango dafay wàcce ñi am tension buy wàcc buñ koy naan dafay yéegal seen tension kon loolu baax kon dafay faj tension buy wàcc mais ki am tension buy yéeg du ko fa mën na gën a yéegal tension bi buy yéeg kon ñi am hypotension muy tension wàcc ñooy jël xasu mango di ko di ko di ko naan méttitu biir baax na si biir buy metti baax na si boo faral di am méttitu biir del baaxal xasu mango ñetti xas ngay jël fajal ko def ko si liisu ndox baxal ko juróom min nga segg ko di ko naan par kaasu ataaya boo ndekkee boo aña ñi am jàngor ko yor muy hémorroïde xasu mango gaaw si ñoom jëlal juróomi xas su boobaa nga baxal ko si liisu ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo aña boo reer bu dee xale muy jël kaasu ataaya fa la hémorroïde boobu di am su ñëwee si xobu mango bi baax na si ictère mu ñu am yaram buy mboq yaram buy jaune mbaa bët di mboq nañuy jël xob mango bi di ko baxal naan su boobaa ñett xob ngay baxal si litre ndox di ko naan par kaasu ataaya boo ndékkee boo añee boo am registre koy jàmbat naan dañuy seen man yu génn dafa yomb lu muy génn ah, ñi am de sperme boobu nañuy wut xobu xobu mango bi di ko baxal di naan soo boobaa juróomi xob ngay jël nga baxal ko si litre ndox di ko naan par kaasu ataaya boo ndékkee boo añee boo ree ñi am jabet bu ñuy baxal xob mango di ko naan day tax duñu am rétinopathie diabétique mooy ñooñu nga xam ne jabet den ba jàpp seen bët du la gaaw a dal xobu mango boo ko dee baxal di naan waaw loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax day faj biir buy daw ak dysenterie mooy euh, euh, feebar biiru tañ su boo da ngay jël juróomi xob nga baxal ko litre ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo reeree soo dee wàccu wàccu xobu mango da koy saafara baxal ko di ko naan par kaas waxtaanee bala ngay lekk nga jiital ko. loolu lu am solo solo la ñi am hyper acidité vaginale aussi ñi am seen kanam jigéen ñi xam seen kanam dafa acide de trop. mën nañ jël xob xasu mango xob mango di ko baxal naan daf koy daf koy wàññi bu baax baax a baax euh, lii di bronchite aussi da koy faj boo amee bronchite jëlal juróomi xob nga baxal ko si litre ndox di ko naan par kaasu ataaya boo ndékkee boo añee soo ree soo ñi am ay jafe-jafe bopp aussi aussi feebar xel yi mag nañ daan leen baxal xob mango ñu koy naan mag ñi dañ ko daan def hépatite baax na si ak kuy miir aussi ak ku am fièvre ki mir ki am hepatite wala ki am fièvre ya tangor yaram bu tar suy baxal lol di xob mago di ko naan mën nako dimbali safaral ko loolu xeet bi nak ñu ko xam si ñàkk nelaw bo amé insomnie baxal reenu mango bi diko nan wala nga am jabet day wacc sucre wala nga am aussi rage muy sopis da koy da koy da koy rahas ba set da ngay jël juromi reen nga baxal ko si ndox diko nan par genn wàll bo boo bo añe bo ñëw si question yi ni ñëw tey euh, boo jëlee nag si garab gi maanaam nga jël si xob bi jël si xas bi jël si reen bi baxal ko di ko jox jigéen ju am jafe-jafe pour am doom yàlla mën a ko dimbali mu gaaw euh, jël jël lëmb question yi ku njëkki daal nee na moom daal euh, feebaru napp moo ko sonal muy arthrose napp tros nag li koy faj bari na mais dañ lay digal d' nga lekk lu am légume di jël légume ak fruit lu am calcium magnésium phosphore manganèse cuivre persil bi baax na mën koy def infusion di ko naan euh, poivron bi baax na navet baax na carotte baax na ñaam bi baax na boo ko jël yàlla mën na dimbali tey jël aussi les légumineuses muy haricot vert lentilles petit pois ñebbe si kàttanu yàlla yàlla mën na dimbali sa cartilage boobu defarwaat ndax li am si reen yi rek moo am si gàncax gi mooy légumes yeeg fruits boo ko dee jël yàlla mun na dem tey lekk léegi fruits aussi lu baax su mel ni pomme verte baax na soo dee jël poire aussi wala baax na aussi citron aussi baax na wala pamplemousse wala orange dafay dëgëral sa yax kii daal ku mujj ren dañ ko delloosil ruy bi daal la bëgg ñu fàttali ko composante ruy bi ruy ginnaaw ak wet hanche ak ak fesse ruy bi sungufu fenugrec wut sungufu ngaw ak sungufu wen soo amee ngaw bi ak wen da koy jaxase boo tibbee kudd ñuy añee ba mu raase mun nga sax boole fenugrec boo nga boole ñett sunguf yëpp xulba bi muy bi boo tibbee sa loxo kudd eh, kudd bu mag ba mu raase da koy def si genn wàll litre ndox bu tàng yëngal bàyyi ba mu tey nga segg ko ndox boobu ngay ñuluge ruy bi boo ko ñuluge ba mu baax na nga wut sungufu dugubu suuna bi genn wàll kaasu dekk yi nga xooyal ko ak ndox nga ruy boo pare nag def si sa soow sa bëral sa meew nga naan en tout cas képp koy def daal sa laaj du la gaaw a bàyyi te it def naa da nga gëj a dem si sëriñ naan ko ñaanal ma ñu leen tàggu fii leen jox rendez-vous seen émission gërëm jërëjëf لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا